doo xaar benn mérite mu revenir la parce que à chaque fois je dis que ne mérite bi ki mu war a revenir à chaque fois kenn du ko jox le plus souvent ki nga xam ne mooy dépenser énergie ci benn mbir dépenser si alalam dépenser si xelam dépenser si temps am et tout ça ba loolu sotti le plus souvent da gis ne mérite bi keneen lañ koy jox. dañu dem sax nag ba utal que expression banaan lu sotti am borom maanaam yow li ngay sonn liggéey beeg yooyu noonu yëpp day mel ni après mérite bi dañ koy jël rek jox ko keneen may waxal di wax nag loolu jarul mettitlu parce que du loo xamante ni ça date d'aujourd'hui ça a toujours été comme ça et dans tous les domaines nag prenons un exemple par exemple tey tailleur bi mën na ñaw yéreem sonn ci lool ci tisi ba euh, wëñ esprit de créativité bi mu war a am pour xam nan la war a ñawee yére beeg énergie bi mu si dépensé et tout genre mais bu jëlee yére bi ba ñaw ko ba jox ko client bu pare client bi du génn si biti ñu naan maa ibra ku la ñawal sa tailleur bi ay na et tout ça nit ñi li ñuy wax rek mooy maa ibra sa yére bi rafet na moom mérite bi yëpp gloire bi yëpp moom moo koy jël après quoi genre maam fàtte nañu sax ki nga xam ne moo dépensé énergie pour di ñawal ko loolu wala genre prenons exemple tey bu ma tabaxoon sama kër ba mu pare maanaam liggéey la ba nga xamante ni mason bi da ci def dara menuisier bi def ci dara plom plombier bi def ci dara ak keneen ak keneen ak keneen mais jamais nga gis nit bu ba ci ci kii bi naan laan ci sa waay sa sa sa sa sa sa sa maçon bi naxu la maanaam defal na la li war sa sa menuisier non sa waay lal na sa kër gi rafet na sa fenêtre rafet na sa kii sax maanaam mérite boobu noonu yëpp yow yaa koy yaa koy amat ba ci kii defar dàll yéeg leneen lu mu mënti doon maanaam man mi nga xës a jël daal ba sol ko daanaka man maa ci man maa maa jël mérite bi yëpp quoi fatte nañu ki nga xam ne moo ci moo ci dépenser énergie yum ak yooyu noonu quoi même ba ci li ñu naan réalisation film. foofu la gën a grave sax parce que da ngay gis Maya da ñëw moom acteur la ñu jox ko benn role mu joué ko rek commencé say am ay fans ñu naan si diw dafa intelligent si diw dafa aay si diw esprit de créativité bi mu amee tout sax te fekk moom dafa ñëw rek ñu jël texte ne ko waxal lii mu ñëw wax lii waxal li mu wax kon ça veut dire que loolu reflet wu intelligence ki nga xam te moo ko bind la maanaam ki nga xam te moo bind film bi mérite bi mu loolu revenir mais xoolal mu ngi delluwaat ci acteur bi. te pourtant fin bi li ñu naan générique de fin buy ñëw kenn du ko seetaan si ñun te pourtant ñi sonn ci film bi yëpp moom la ñuy wane foofu moom réalisateur beeg producteur beeg cadreur yeeg preneur de son yeeg yooyu noonu quoi mais kenn du leen sax li jënd quoi pour te dire que ne mérite bi à chaque fois ki koy yelloo duñ ko ko mas a jox quoi genre te loolu fi ma gën a flagrant wee sax mooy tey si suñu diini si islam bu ñu koy wax yàlla moo ko jël tànn ci bi alayhi salaam jox ko mu teg si lu pour ñu jox ko yeneen bi alayhi salaam lu ne rek daj naka ngir mën ñu jox diine jooju tuur nañ sa deretam génne nañ ko fa mu dëkk jixaat na ci perte si ña nga xamante ne ay être cher la ñu woon jëm ci ñoom lu nekk rek yeneen alayhi salaam ràngoo naka ngir mun ñu jox loolu waaye itam ginnaawam bi mu génnee àddina boo saxaaba yi sàgganoon léegi ñun diine duñ ci duñ ci jot ndax dina naxasaay mais xoolal yeneen bi alayhi salaam li mu si daj yëpp nga xool saxaaba lu lañ ci daj yëpp nga comparé ko ak ñu tey Sénégal kan la ñu jox mérite bi rarement ngay gis am tante ñu tante ko di waxtaane yónneen bi alayhi salaam kan la ñuy waxtaane sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom da ngay da ngay mujjee fàtte ne sax ne diine ji yonent bi daj na si lu ne pour ñu daj ko da ngay fàtte ne diine ji saxaaba nañ lu ne pour conservé ko pour conserver alxuraan conserver xadis yi conserver jàngale islam bi yëpp sonn ci loolu yëpp fàtte nañ ko mais itam fàtte nañ ñu dox ci diggante saxaaba yi ba suñu mag ñaata ñaata ñaata temps la ay millénaire la moom millénaire moo passé si diggante bu ko ça veut dire am na ay nit yu bëree bëree bëree bëri bëri yu sonn ba mu soog a yëg si ñoom mais xoolal bi mu ñëwee ba fii dañ briser chaîne bi fàtte leen ñun ñun ñëpp jël mérite bi jox ko suñu mag ñi nga xamante ni ñoo fi ne donte am na ñu mérite mais mérite bi nag mu ngi ëppee fële parce que ñi lay ñoo ko implanté islam bi def du tout euh, ba mu sotti ñu soog si jot tey mais xoolal tey suñu tànk bu ñuy tànn kan la ñuy waxtaane kan la ñu jël mérite bi jox ko ko kan la ñu ëpp sax cofeel jëm ci moom da ngay xool tey mën nañu wax yàlla lu ne duñ ko lijjanti mën nañu wax yeneen te lu ne alayhi salaatu wasallam duñ ko lijjanti mais tey bu ñu tuddoon kenn si mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi rek maa ngi jël jaay seen ne day dem xeex ji wala genre kon léegi ne bi mu am si ñi sax amu ko si ñi xam ne ñoo si sonn tey ba mu yegg si fii moo tax nag may faral wax ni mérite buñ la ko joxul itam bul ko mettul xam ne ça toujours été ainsi kon li am solo rek mooy yow booy def mbir. def ko te yàlla tax ndax damay faral di wax naan ki nga xam ne moo ngi mettit lu ñàkk reconnaissance euh, nit jëm ci moom moom moo fautif parce que boo defoon te yàlla tax doo xaar ku la sa wax merci ba ngay am lu la metti après wala genre moo tax nit ki booy def defal te yàlla tax nga def fàtte li lay noppal mooy nga bañ xaar dara en retour si nit ñi parce que nit ñi moom képp ku dépendre si ñoom rek déception nga si jël moo tax ci tënk dama naan nit ñaar la nit ki ak li ko war moom jëm ci yow li li nga xam ne moo la war a yitteel mooy sa sa sa sa devoir envers moom fexeel ba nanga ko matal ba doo mos a moom fenn ci àddina naan da sëgg sa ñaari gët yi foo mas a ak moom da sig jël mu leer na yow sa devoir yëpp matal nga ko si moom pour nag sa qui de son pour ce qui est de son devoir envers yow loolu moom bu ko lijjanti moom bu ko matalee baax na bu ko matalul baax na yow n'attends rien de lui loolu moo lay mën a noppal mais nag nit ñi moom tant yaa ngi xaar dara si ñoom en retour rek boo moytuwul si déception ngay dëkk ak si souffrance parce que nit ñu ci bëri instant bii ni moom la yàlla xam day reconnaissance moom dañu koy dégg rek waaye xamuñu ko